daje mi li ko waral tey mooy yàlla dafa dogal ñu am ay kuréelu ambulance yu baree bari yoo xamante ni ñëw nañ teew si fii si Touba yàlla dogal ñoom ñëpp nag aussi euh, ñu mànkoo ànd doon benn ngir boole seen bopp. boulanger xam na ne Sénégal dañ ko fulaalut li tax fulaaluñ ko mooy Sénégal ku ne xam na ne secteur boulanger mooy secteur presque bokk na ci ëpp doole ci Sénégal te vraiment ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi nekk ci biir four yi di boulanger yi. gisuñu seen bopp ci réew mi gisuñu seen cër ci réew mi ak doxalinu réew mi loolu nag ku ne xam na ne ñoom rek ñoo mën a jug pour régleel ko seen bopp amul kenn koo xamante ne dañoo jug pour xeex leen ko te ñoom it dem nañ ba comprendre ne lenn mooy tax ñu man koo xeex mooy ñu booloo doon benn ngir xàccandoo ngir doorandoo wut benn kilifa boo xamante ni dina taxaw ci seen i soxla bokk si seen biir jiite ci association yi boole leen ñoom ñëpp coordonné leen pour que association boulanger eh, eh, yi nga xamante moo nekk Sénégal yëpp mën a doon benn. Euh, ñu mën a gën a yokk seen doole ci fànn yëpp ndax Boulanger bari na ay jafe-jafe yoo xamante ni jéggi na dayo loo xamante yow yàgg nañ di waxtaan ci problème yi Sénégal yëpp xam nañu ne secteur boulanger mooy secteur bi ëpp problème ci Sénégal. Euh, teewaay bi tey Touba c'est très simple que euh, c'est rassembler l'ensemble euh, des boulangers du Sénégal muy les quatorze régions pour que euh, ñun ci sunu wàllu bopp ñu xam ne li ñuy yore tey kenn mënuñu koo defaral ku dul sunu bopp. moo waral tey ñu tase fii ci Touba pour mën a waxtaane suñuy jafe-jafe yi nekk ci suñu liggéey pour que ëllëg incha allahu rabbi jafe-jafe yi ci nekk yëpp ñu fexe ba bu mënta saafaru lépp tamit mu saafaru lu ëpp bokk kon tey jii ñun suñuy wax syndicat bi la ñoo bëgg mu nekk un partenariat gagnant gagnant ñun suñuy def ci moom moom muy def ci ñun parce que tey jii euh, li boulanger yi soxla ay formation comme ni ko sama naataango bi waxee renforcement de capacité te loolu dafa laaj ay moyens yu colossal te moyens yooyu tey jii pour ñu am ko mel ni syndicat bi dañ dalee di cotiser di ko jox ay carte di ko jënd ay carte membre di ko cotiser tey jii bu ñu taxawaloon ay centre de formation tey ñu fay dem dafa def renforcement de capacité parce que xam nañ fi mal bi nekk li ñuy naan ouvrier yi mënaguñ mënuñu seen métier tey loolu bu ñu ko éradiquer fexe ba mu deñ dina permettre tey jafe-jafe ba daan am ci diggante patron bi ak employé bi dina deñ su boobaa jafe boobu deñ ndax formation yooyu ñu am muy renforcement de capacité du tere syndicat bi dina dund ndax suñu cotisation ba léegi day continuer di dem ak yeneen ak yeneen ya nga xamante ne tey jii syndicat bi dina dund dundam ñu ñu dund suñu dund patron bi di dund te jafe-jafe dootul amati. bëgg nañ développer suñu secteur bi daal ba mu jëm kanam ah ci kanam yu tuuti ñuy fan yu néew nag ah dinañ ñu dégg ndax am na ay yëngu-yëngu yu ñuy préparer ndax dañoo xam ne ci réew mi lañ bokk mais dañoo bàyyi kenn toppatoo kenn faale wuñu ci lenn nag. kon boulanger tey jii mën nañ ne amul considération ci réew mii ñu nekk tey muy Sénégal amu ci considération mais nag euh, li ñuy wax mbajum kanam borom a koy fajal boppam fulla bi mu ngi fi fayda baa ngi fi fit baa ngi fi lépp ngi fi ci kanam fan yu néew bu soobee yàlla dinañ ñu dégg ci ay yëngu-yëngu ya nga xamante ne tey jii sénégalais yi dinañ xam ne boulanger yi ci réew mi lañ bokk fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee te lépp lu ñu mënti am tamit suñu métier bi moo ñu ko gënal parce que lépp lu ñu mën am tey jii bi la juddu ci boulanger tekk ci boulanger ba sunu borom def li gën ci ñun. jafe-jafe ci tënk euh, dañoo nekk ci secteur ba nga xamante ne tey jii dafa nekk en pleine mutation dañoo war a jóge ci point A dem ci point B parce que la woon démb ak barke démb nekkatul technologie dafay avancer kon dañuy avancer dem bu njëkk xëy na four ban lañ doon wax mais léegi rotatif yaa ngi fi sol fixe yaa ngi fi pétrin yaa ngi fi yooyu yëpp ci changement bi la bokk kon il faut ñun tamit ñu changer suñu mentalité. comme li ma lay wax rek ne la boulangerie dafa technique dafa am ay normes ya nga xamante dafa nekk ci mburu te normes yooyu sénégalais yi dañ ko war a xam man dama naan souvent mburu médicament la ndax da ngay dem hôpital médecin bi bindal la ordonnance nga dem pharmacien bi jaay la ne la nii ak nii nga koy jëlee mburu tamit c'est la chose tey mburu dafa am lu muy laaj boobu le minimum nit ki dafa war a xam li ñuy wax la background tey bu ñu nee la benn kilo farine la mu war a jël ci ndox glace levure améliorant espèce loolu noonu tey ji soo ko defee soo ko bàyyee li mu war a reposer mu reposer ko mburu bi soo ko defaree boo ko lekkee mu jëriñ la jafe-jafe yi ci nekk nag bari na état am na ci part de responsabilité patronat bi am na ci part de responsabilité boulanger bi am na ci part de responsabilité mais plus particulièrement état plus particulièrement état parce que tey bu fekkee patronat bi tey majeure partie des patron et je pèse bien mes mots bëgguñu seen i yi xam dara ndax man yàgg naa dugg ci boulangerie yi di woo ay nit pour des formations mais dañ naan ak ah, kii bu demee def formation bu ñëwee damay sonal muy benn beneen bi ci des état musul woo ci table de négociation un boulanger ku muy woo patronat lay woo syndicaliste ak état ñu bokk toog et pourtant les boulangers sont les acteurs tey ñi naan ñooy boulanger ñooñu du ñu ay boulanger dama ne la ñooñu ay capitaliste lañ ay bailleurs de fonds lañ su ñuy wax tey le boulanger c' est l' acteur c' celui qui le pratique kooku mooy boulanger bi mais jafe yooyu tey jii matériel ci la bokk formation ci la bokk. ainsi de suite ainsi de suite te li ko gën a yokk tey suivi amul ci li ñuy def lépp mais bu ñu joxoon le matériel nécessaire defal ñu formation yi ñu soxla renforcement de capacité kon tey jii mën na ne coow lépp day féete boor te am nañu ressources humaines bi mu ngi fi man mii di wax ak yow de je n'ai jamais quitté ce pays musuma génn Sénégal mais ñeew ma kenn ci defar mburu tey lépp lu nit ki di xalaat ci defar mburu rek tey jii alhamdulilah maa ngi ciy sant yàlla nag bu baax. lan moo ci des état dugal ci loxoom woo ñu bokk toog. mu laaj ñu ñu wax ko li fi nekk mu jàpp ci ñu xam ne ñun dañoo bokk ci réew mi nañ ñu ci boole jox ñu si sunu wàll ñu jël ci sunu wàll ñu yëg ñu fulaal ñu fu ñuy wax boulanger di monde ñu wax boole ci boulanger Sénégal yi ay jàmbaar ñoo fi nekk ay liggéeykat a fi nekk peut-être xëy na li ñuy wax moom mooy jàng bi moo des tuuti ndax école amu fi école de la boulangerie amu fi xëy na bu ñu fi wax benn école moo fi am muy bëgguma def publicité ñëpp xam nañ ko fi mais à part loolu beneen école amu fi